jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ koy defee saa su ne mbokk yi tey nag dañoo seet si l'ensemble Ouzin Production staff bi ak ñëpp lañ seet ngir ñu waxtaan barki demb géejawaay gis ngeen conférence de presse bi mu fa def journée bi nga xamante ni moom la organisé jëmale ci trois cent litres moom Ouzin production mu doon journée boo xamante ni askanu làmb ñu ngi koy xaar rawatina wasaare làmb tey moo waral ñu seet ko ngir waxtaan ak moom ci journée yi fu mu toll combat bi nga xamante ni dégg nañ ko ci bëre dóor bi nga xamante ni Ouzin production taxawal na ko dox ci diggante Angleterre bu dóodóoraat ak majji majji kon léegi loolu yëpp dinañ ci waxtaan wolof nag def ne tungu ne du teew ñuy natt ci ëkk Ouzin maa ngi lay nuyu. maa lay fay jëli la sant bu baax. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina moo sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñi nga xamante ni ñooy auditeurs wasaara làmb yëpp di nuyu sa man di nuyu ñi nga xamante ni ñooy waa staff Ouzin Production di si jiital suma papa père Modou Bey di ci teg suma copain suma xarit muy Gora Ñang ah, di ci teg ki nga xamante ne mooy père Birahim Buuba Moussa vraiment ñëpp daal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci staff maa ngi leen di nuyu la sant yow tamit bu baax ci seet si bi ñu seer si tey. <laughs> Euh, Ouzin bërki démb dafa da nga woote conférence de presse képp kuy mondu làmb dajaloo fa ñi ŋànk làmb yëpp ñu waxtaan mu am journée boo xamante ni da nga ko taxawal muy journée trois cent litres boobu foo toll ci programme yooyu. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant bu baax parce que keroog def nañ point de presse bi nga xamante ni dañ leen présenter projet 300 lutteurs bi vraiment keroog yéen a nga fa woon ñuy sant seen liggéey bi ngeen ci jot def yéen waa wasaare ñu leen di sant bu baax bon fi ñu toll ci liggéey bi mooy dañoo nekk di préparer li nga xamante ni mooy journée de lancement bi journée de lancement bi nag mi ngi war a am le 7 mars ñu war ko ubbee lutte avec frappe comme ni nga wax ni ñu taxawal majji majji ak ki nga xamante ni moom mooy Angleterre bu dóor dóoraan ñu war ko def le 7 mars d'ailleurs ñoom euh, le 12 nañu war a def sax seen face à face signature de contrat bi ñu war a def fële ci stade Amadou bari bon jour boobu ci bon dinañ ci invité quelques lutteurs yi nga xam te ñoo war a def ci lutte simple bi ci trois 300 yi. Mm. vraiment ci foofu nañ toll. incha allah. le 12 février mooy seen deuxième jàkkaarloo bu ñu war a def. mooy seen deuxième jàkkaarloo bi ñu war a def ñaari mbër yi xam naa boobu nag mooy gën a élargi tuuti parce que ci stadium amul Barry bi nañ koy defee di ci invité ak làmb yëpp pour ñu ñëw fekkee loolu waaw. journée 300 litres yi litres yëpp mat nañ trois 300 yëpp. waaw 300 yi yëpp mat nañu parce que kooku sama sama père laay bàyyi après moom mu wax ci parce que moom moo yor euh, contagu littère yooyu. mais ci liñ jotoon a jàpp ci semaine bi ñu génne nii daanaka lépp moom tegoon na ko ci papier ba xamal nañu daal lépp mat na incha allah. Hmm. waaw. journée yi nga organisé euh, wax nga ci sa biir wax Angleterre ak euh, Madj Madj taxawal nga ko am na ñeneen lutteurs yoo xamante ne yaa ngi leen démarché ci wàllu bëre dóor. waaw am na ñeneen ñu ñuy démarché ci wàllu bëre dóor bi. ñu ngi waxtaan ñu bari ku mel ni Libusine ñu ngi doon ñu ngi ko doon contacter Ndiaga Doole ñu ngi ko doon contacter. Cobra contacter nañ ko. bon blende biñ wax léegi nekk écrit d'odorat ñoom ñu ngi leen di contacter ay laadum ñooñu ñëpp ñu ngi ciy wax ak ñi nga xamante ni bu ñu paree ci bëri dóor bi premier journée bi rek dañuy attaqué deuxième bi am nañ yaakaar sax bala ñoo dem ci la set dina am beneen grand combat bu taxaw. incha allah. am na beneen mbër bi ma dégg Grand Yoff dégg naa tamit yaa dox combat mun nga maa confirmer loolu. waaw Grand Yoff euh, suñu combat bi nii am na mbër moo xamante ni da ciy bëree mooy Milima ak Zé Baye hmm. ñoom dèjà ñoom ñoo ñuy defal spécial. amaat nañ beneen mbër mu nekk Grand Yoff ñu koy wax euh, boîte vocale. ak Pape Socé ñoom tamit euh, dañuy bëree ci journée bi comme spécial. Hmm. am na beneen mbër tamit bu nekk Grand Yoff ñu ngi koy démarché ku mel ni ñoom nu mu tuddati sax booy kii bi. mobile 2 mobile 2 ñu ngi koy jéem a contacter pour xool ci nan lañuy def pour ñu dugg ci deuxième journée bi. mobile 2 dafa mel ni jot ngeen waxtaan ci ci làmb ci waaw jot nañ ci waxtaan mais soriwuñ ci nag parce que ñi ko yore daal nañ jot a pour xool parce que làmb ji moom léegi boo waxee ban mi la waxal ak sama staff. boo waxee staff yi après nga door dem ci ménager bi ñu door a mais pour l'instant daal ñu ngi ci avancé daal. Mm. incha allah. Mm-hmm. làmb moo demee noonu waaye xam nga promoteur yi moom le fait nga ni diw mu ngi dox combat diw ak diw rek ñi ko soxla dañuy bari waaye comme mobile de bëgg nga ko nañ denc ki ñu ko bëgg a dajale parce que xam naa ne Ouzin du gan ci làmb. waaw lool moom dëgg la moom. man dama naan làmb ji fi mu toll nii li fi nekk ci ay mbër nekku fi ko ci ay promoteur tey boo làmbee bu fekkee sottiwul ci yow bu sottee ci beneen promoteur alhamdu parce que dañuy xam ni commencé woon nga ko xëy na sottiwul ci yow ci kële na sottee loolu pour man amul benn problème làmb nag ñun duñ ci gan wax dëgg yàlla parce que nekk nañ ci ay ati at yoo xamante ni ñu ngi woon ci làmb ji xëy na am na fu ñu mën a jaar pour organiser combat am na fu ñu mën a jaar pour tëgg ay mbër mais nag lu lu sotti rek dañuy xam ni yàlla suñu borom ci ñun na ko sottilee parce que avant ñuy taxawal journée bi nii rek am na combat boo xam taxawaloon nañ ko ba sori ci ba amoon ci yaakaar lool mais ci lu motul demi journée rek combat bi daal di yàqu daal moo tax dañuy sant yàlla xam ni lu sotti rek dañ naan suñu borom la daal waaw lu sotti dañuy sant suñu borom ne moom la. Mhm. Père Modou tey ngeen organiser journée bu mag yow ku la xam-xam la ci làmb xam ne yàgg nga ci làmb macha allah. xale ñu fi coow yëpp ci mbëri ndaw yi daanaka mën naa ni jaar nañ ci say loxo tey lan nga ma mën a wax ci journée trois cent litres boobu nga xamante ni Ouzin Production organisé ngeen ko. dëgg la Baye Djili ginnaaw bi ñu sant yàlla pare. julli ci Yonent bi di sant suñuy waajur di leen ñaanal yërmande suñu borom. di la ñaanal nga barkeel Djili. di nuyu sa caméraman. di nuyu staffu Ouzin Production yi. di dellu nuyu Ousseyn kilifa gi. di nuyu Gora Niang di nuyu per père père Birahim Seck. Hmm. Euh, euh, di nuyu sa mbokku internet yëpp di ñu seetaan. Hmm. di leen bëggee di nuyu waa diaspora bi ñëpp di leen kontaanee. Hmm. di ñaanal ñëpp jàmm. Ah, di kontaan ci bu baax si yow nag ci ga euh, dikk bi nga dikk si ñun nii. di teral nii pour ñu wax si jeunesse bi. di wax si jeunesse su làmb di wax si jeunesse Sénégal. Ah, di wax si jeunesse su làmb bu baax a baax. ndax jeunesse bi dañuy dañuy dañuy yitteel di ay doom nekk ci làmb bi ñu ay baay di yëngu ci làmb ji bëgg di ànd ak ñoom pour pour jàppale leen pour ñu mën a bëre ndax boo seetee écrit yu bari écrit boo dem yaa plus de cent mbër yoo xam ni daanaka daanaka cinq ñoo ciy bëre lu gàtt gàtt dix ñoo ciy bëre le reste yëpp du ñu bëre ñi amuñu licence te ñi dañuy daw ba sonn duñu am lu du am du ñu am fu ñu bëree du ñu am ku leen jàppale te promoteurs yi bareetuñ noonu te sponsor yëpp daw nañu te état bi dafa man jàppale dafa manqué si si si jeunesse bi. Mm-hmm. am nañu arène nationale nag mais dafa suivi bi moo manqué te presque sponsor yëpp daw nañu si loolu si la ousin di am inspiration yooyu di dajale 300 lutteurs yooyu andi seen Ouzin production pour jàppale xale yi amul chance bu bëre. Mm-hmm. mu tëggal leen mbapat ñëw rek ñëw jël leen wutal leen licence simple. Mm-hmm. ñu ànd seeg CNG ñu jàppale ñu pour ñu def ko 5 journée ba 6 ñu ngi koy démarrer si Adrien Senghor. pour jàppale xale yi amul amul chance bu bëri ñu dugal leen ci mbapat yooyu pour ñu jël seen wërsëg ñoom tamit ndax ñu mën a téye seen ngor ndax 300 lutteurs initiative bu rafet la képp ku ko dégg dina xam li lu rafet la ndax làmb dafa war avancé làmb amul làmb làmb amul tànk ginnaaw tànk kanam la am euh, d'ailleurs sax bi ma ànd ak association jeunes amateurs ànd ak ñoom dem dem dem seeti ministre ma tar Ba tegal naa ko projet bi trois 300 lutteurs bi ak Ousin production ba ma sax indil ma ko. indil ma ko ñu xool ko ndax loolu c'est intéressant ndax xale yi amul sens bëre ñu jàppale leen ñu bëre bëre simple day am day baax ci réew mi dina tax jeunesse bi am stabilité dina tax làmb ji tamit am dal ndax làmb ji tam d'accord mi ngi dox mais promoteurs yi amatuñu moyen pour tëggal ñëpp parce que amuñu xaalis te ñu bari dañuy leb ci banque yi rek di tëgg kon état bi moo war a wëññe état moo war a wëññeeku jàppale làmb jàppale do jàppale doomu làmb jàppale jeunesse bi nekk ci làmb pour ñu mën a téye seen ngor jàppale promoteurs yi tamit dooleel CNG pour ñu mën a jàppale xale yi mu bëri ñu bëre loolu daal moom mooy initiative fu Ouzin Production ak ak les trois cent trois cent lutteurs voilà euh, loolu nag si loolu ñun ñooy def démarche yi combat yooyu si ñun la nekk ndax defoon nañ ko si 2014 bi si 2013 bi ak Ouzin Production ba def ba demoon ba demoon Amadou Bari def fa def fa 15 journée ak xale yooyu mais manque moyen moo tax loolu continué wul mais loolu ba léegi ñu ngi koy téyewaat ba yàlla dogal bi mu ñu dekk ñu ko. Ouzin déclare ko parce que projet bu am projet la boo xam kenn du ko sànni du dem géej mukk parce que lu mu gën a yàgg rek day gën a baax jeunesse bi projet 2014 boobu moom la ñu déclaré ci 2020 bi pour que mën a relancer ko waaw relancement boobu nag la ñu nekk nii contacté naa écurie yëpp ndax écurie bu ma dem ñu teral ma. écurie ñaata nga dem ak écurie bu nekk ñaata mbër nga fa jëlee. waa dem na ci 45 écurie eh, demagum naa ci 45 écurie am ak ñoom ñëpp contact. Hmm. waaw suñ ko limee duñ mën a jóg ci tey. voilà mais fu ma taxaw. fu père Modou Bey taxaw ñoom ñëpp ñu ngi may dégg ak lu lamb ñu ngi may déglu fii ba Tëngéej ba Bargny ñoom ñëpp ñu ngi may déglu xam nañ ma Grand Yoff Géejawaay Parcelles lépp fu ma taxaw am naa fa 15 mbër wala 10 mbër yoo xam ne maa ngi leen di sélectionné di leen invité nag le 12 ñoom ñëpp le 12 le 12 février mercredi si stade Amadou Barry fa la ñuy defee signature de relancement bi si grand combat bi diggante Madj Madj ak ak Angleterre bëgg naa écrit yooyu yëpp. yëpp ma dem ñi ma am ak ñoom contact ñëpp ñu ma jox seen mbër ñëpp bëgg naa invité naa leen le le le douze février si sa stade Amadou Barry pour ñëw fekkee boobu signature parce que dafa lié ak 300 lutteurs yi ak ak ak lancement wu 300 ak lancement wu grand combat bi. avec frappe diggante ndax nag ah, événement bu am solo la si ñun bu mag bëgg naa képp kuy mbër mu ndaw à partir de 75 kilos 80 kilos nekk si écurie amoo sens su bëree man père bay boo ñëwee si man. di nga bokk ci 300 lutteurs yi ba euh, jël nañ 75 pour l' instant ñoom ñuy ubbi ñuy ubbi ñuy ubbi mbapat bi si Adrien Senghor kooku ñu koy tàmbali le 21 mars. soit wala le 22 wala le 23 ça dépend ci mois de mars bi ci fin bi rek war nañ mën a tàmbali mbapat yooyu buñ ginnaaw bu ñu tëggee suñu combat. Ah, bëri dóor ba pare diggante mbaaj mbaaj ak Angleterre. le 7 euh, mars le 7 mars. Mm-hmm. si si nationale bi. Mm-hmm. waaw si liggéey boobu la ñu nekk pour jàppale jeunesse bi pour jàppale état bi. ñu ngi bëgg Maxtar Ba. mu recevoir ñu ñu ngi koy soxla ñu ngi koy wut. pour mu dimbali ñu ci projet bi parce que projet bu am solo la. dina leen recevoir incha allah parce que 300 litres ku ko jël ci làmb daanaka xaaju mbër yëpp tëgg nañ leen. Mm, tey loolu buñ ko amoon ci ñett promoteur wala ñeent daanaka mbër yëpp dinañ tooyal seen xaftaan. dëgg la xam nga xale yi jili yow jeune nga bu am jom macha allah ñu ngi lay ñaanal suñu borom barkeel la. parce que dañoo bëgg làmb di ko dund amuñu ku leen jàppale. gisuñu leen jàppale da ngay gis booy boo xam day ak Ousin production ànd ak am initiative boobu jël 300 lutteurs jël moyen def ci amul doole bi dañu bëgg ñu jàppale ko lim ci mën mu ngi koy def ndax bu bu ndax bu boolee lutte avec frappe ak simple bi xam ma dèjà kooku moyen moo koy def mais ci alalam fu ne mu dugg fa génn pour jàppale sénégalais yi pour jàppale réew mi pour jàppale jeunesse bi kon kon ministre des sports dafa war a gestu état dafa war a gestu Ousin production pour mu mën a jëm kanam pour mu jàppale làmb parce que làmb amul làmb amul amul bàjjan te ñu bëri dañuy taxaw pour yàq làmb te lamb dafa baax ci réew mi suñu ñoo ko moom suñu cosaan la. suñu sport national la ñoo ko moom jéggaane wuñ ko fenn. dañ ko war a fonk nag waaw bu ñu amee ku mel ne Ousseynou Gueye di di Ousin ak xale bu mel nii Gora Niang nekk ak ñun ak Père Birahim ak Bouba ak ak Moussa xale yooyu di ay jeunes bëgg avancer lamb dañ leen war a gestu jàppale dañu bëgg état. surtout le ministre Matar Ba mi baax mu jàppale ñu ci projet 300 litres yi pour ñu a Sénégal mën a dem kanam jeunesse bi mën a dem kanam ngi ñëw si yéen na pareeguñu fu nekk dinañ ko dina ñëw recruter ñëpp le 12 février bi ñu jëm mercredi bi jëm gën a ñëw ñëpp ñu ñëw si Amadou Bari ñu sargal leen ku nekk jël sa sens ñu xool ñu xool liggéey bi ñuy liggéey ci réew mi ak Ouzin production ànd ak Ouzin pour mu mën a jàppale jeunesse sénégalaise tax mu jëm kanam ndax mu jëm kanam moom la Alioune Sarr bëgg moom la Sénégalais yi bëgg moom la njaboot gi bëgg moom la ñëpp bëgg ndax jàmmi làmb lañ bëgg dañ bëgg làmb avancé moo tax ñuy moo tax am initiative bi di ko def kontaan ci bu baax a baax. jërëjëf père jërëjëf. ba tey ñu ngi toog ak Gora Mbaxal ñii naan ko Gora Béye waaye Sénégal gépp Gora Mbaxal lañ gën a xam mu nekk koo xamante ne xale la boo xamante ne loxoom set na mu mun a bokk ak mag xam naa ñeneen ñoo xamante ne yàgg ngaa ànd ak ñoom ci làmb rawatina mbër yoo xamante ne champion lañ ci làmb mënuñoo tudd ñaar wala ñett ñoo xam ne champion lañ ci làmb te àndatoo ñoom soo àndee ak Ouzin kenn du la laaj lu tax ngeen ànd ndax làmb mu bëre ba bàyyi bëre am na fu jaar ba nag moom ku baax ndeysaan léegi tey loolu yëpp am euh, initiative bi nu mu nu mu demee Ouzin Production. waaw ginnaaw ban sant yàlla ñu ngi julli si Baay Laay Ali wasalaam. Mm. di ñaanal xalifatul muslim jasaak baay Abdoulaye yàlla na fi yàgg te wér di gërëm waa kër Alaaji Malick yàlla na leen fi yàlla bàyyi waa kër Serigne tuuba yàlla na leen fi yàlla bàyyi si bopp bi waa ñaseen noonu xaadir ñépp ba si kër sunu mbokk kër chrétien yi ñu ngi leen di ziar waaw jiili li ma laaj dinaa si sawar a tontu. ndax bun nu àndee ak production di liggéey li naan dërëm bi génnul gaal gi olof Njaay nee na boo nekkee si gaal yor sa ëmb bul ñaan sa ëmb mucc da ngay ñaan gaal gi mucc. ndax bu gaal sa ëmb mucc. kon sant yàlla la. Mm-hmm. ñu ngi ziar père Modou mm-hmm. di ziar Ouzin ak sunu père Birahim Cheikh Thiam. Mm-hmm. ak ñin filim yëpp di la ziar yow mi nga xam ne yaa yor wasaare làmb yàlla na yàlla taxaw. di gërëm sa caméraman bi ñu naan ko Basir. Hmm. parce que ay nit ñu baax ngeen. Hmm. làmb ji dan ànd si ngor ak teraanga ñu ngi réunion di waxtaan. Hmm. ci dimbali làmb ndax li man làmb gars yi ràññee nañ ma si. xam nañ ma si takk naa ngemb ànd naa ak ay mbër. kon loolu sant yàlla la. bun jugee lii nga xam ni mooy staff Ouzin Production ñu bokk si dañ si war a bokk. ndax ay nitu làmb lan dajale pour mën a yokk làmb kon tey bu ñëwee sant yàlla la Ouzin Production nag lin man ñu ngi koy def dugg nañ ci simple bi dugg ci dóor bi ñu ngi jëm le 12 février fële stadium bu géejawaay bi diggante maaji maaji ak Angleterre ñu war a signature Zé Baye Fall war fa signature ak Milima loolu la grand combat la Brise de Mer 2 ñëwagul boîte vocale ñëwagul Pape Socé ñëwagul. làmba yi làmba ju neex la ñu ngi woo ñëpp parce que bëgg na dugg si dugg si bu am solo. Mhm. ñëpp ràññeewaat na. dugg si bi am solo weesuwul góor a ngeen tëgg journée trois cent litres mhm. du caaxaan rawatina ngeen tëgg combat boo xamante ne Angleterre bu dóodóoraat ak màjj màjj lan mooy seen secret yéen waa Ouzin Production. waaw secret bi mooy. xam si làmb yàgg suivre xale yi parce que ku mel ni Angleterre barki démb Ndiaye la fi bëreeg Zambala Maji Maji bëri na fekk ay Saal Bool Moussa Ball moo ko freiné woon xale bu am jom ñoom ñaar ñëpp te le 7 mars la gars yi di xam liñ tëgg te am na yeneen mbër yoo xam ñoom lañ jëkkoon waxal am nañ combat buñ sori diggante góor a soog doomu dàngu demoon nañ ba mu taxaw. ba dernier moment lan ko lan ko mujjee perte mais njaga njaga doole booy fay taxawoon na ban dem war a dem CNG si bis bi lan nu wawaat noonu Moussa Balla njaga doole yooyu yëpp ñu ko doon dox mais tamit sant yàlla parce que Angleterre maaj maaj ku ko indi rek indi nga grand combat. Mm-hmm. Ousseyn nit la koo xamante ni ku am mbooloo la rawatina maaj maaj. maaj le du le 7 mars la gars yi di xam loolu ngay wax jiili. Mm-hmm. parce que ñoom ñu ngi pare seen combat ñu ngi préparé mobiliser wu loolu rek doy na kon ji am na loo xam ni li si kanam raw li bët. yàlla na yàlla mootal li si kanam. dama ñëw fekk la nga sol benn t-shirt. Euh, naan Gofio. Mm. boo ko gisee dafa am sunu benn waay bu ne Espagne ñu naan ko Modou Ndiaye. Mm-hmm. nekk ba Ibiza moom moo indi marque bi. Mm-hmm. ànd seeg waa Gofio. barki Demba Ndiaye may nuyu au passage roi des arènes ñu naan ko Modou Lo dëkk fii xale bu am jom. ñu ànd ak moom mbapat ba tey arène. mu publicité lii au passage Balla Gaye tamit publicité na lii. ñun dañ bëgg a liggéey ak góof yoo. parce que làmb dafa laaj sponsor. dafa laaj jàppale. góof yoo nag dañ ñëw pour mu jàppale noonu te ñu ngi si kaw ñu ngi af ay contact ñu ngi waxtaan ak moom mais li si des bareetul. kon daanaka mën naa ni da ko sol rek parce que doomu réew mi nga lépp lu réew mi nekk sa loxo ngi ci moo tax nga sol ko waaye jo su ñëwoo leen benn accord. benn accord te Modou Ndiaye moo gën a tax ma sol ko. parce que moom moo yor affaire bi. te kooku taxawal na ma fu ne. sama rakk jóge na fii dem Ibiza euh, Espagne. ma woo ko mu dalal ko. Mm-hmm. kon kooku lu mu bokk man maa ngi si ñooñ euh, Gofio bu nu jàppalewul ñu dañ leen di jàppale ndax Modou Ndiaye nit ku baax la Modou Ndiaye moo tax mu dugg si Gofio yàlla yàlla mottali. waaw loolu daal laa am lu ma waxagum. jërëjëf Gora. Mm-hmm. Ouzin euh, journée trois cent litres yi. Ah. li ma buggoon xam mooy mbër mu nekk dafa am cachet boo déggoog ñoom wala dafa am looy teg. waaw mbër mu ci nekk trois cent litres yëpp dañu am benn système bu bees bu ñu indi mooy 300 lutteurs yëpp dañ leen di fay en même temps bu ñu demee ba toll ci final bi ñu teg benn mise parce que niñ ko doxalee mooy nan dañuy def ba mbër yi xam nga dañ ne 300 lutteurs yi mbëri yi di bëre arène moomuñu ko ñi ko moom mooy ñi amul sens bëre arène boo gisee projet bi dafa tudd ci lañ bokk ci lañ bokk boobu mooy mbëri yi entraîné te amuñu làmb ñooñu ñoo doon wax naan pourtant ci làmb ji lañ bokk ñooñu lañ ñoo ñoo moom projet bi boo ñëwee nag kenn ku nekk nañ la jox cachet parce que nekkul benn jour kase mooy tournoi bi. tournoi bi dañ ko def ay journée ay combat nommé la. combat nommé yi journée bu nekk dinañ jël trente combats soixante lutteurs boo ko jëlee cinq jours trois cent yëpp bëre. ñu préparé waat deuxième tour. deuxième tour boobu da ngay amaat cachet di bëre boo demee troisième tour amaat cachet quatrième tour day quatrième tour day tombé ak bi. final bi dañuy teg benn mise comme ni ma ko waxee woon ci conférence de presse bi. bëgg nañ teg lu mu gàtt gàtt ci parce que tournoi bi ñaari poule la. dafa am poule de 65 kilos 70 ak 75 ba 80. ñaari poule yooyu dañ bëgg xool bu ci nekk poule bu ci nekk minimum dinañ fa teg un million pour ku ko jël. parce que dañu bëgg commencé loo xamante ni bu làmb ji commencé sàjj ñu ne kat. bon ñi nga xamante ne ñoo nekk ci écrit yëpp ñi nga xamante ne dañ bëre ci bëre simple ci tournoi yi hmm. ñiy bëre ci adrin yi ci adrin yi ci mbapat yi ñi bëre ci li nga xamante ne mooy lutte avec fra bi hmm. bu ko defee mbër yi ñun li ñu bëgg a def nii mooy pour ñu xam ni ñoom war nañoo mën a nekk ay champion hmm. war nañoo mën a nekk ay guerrier parce que bu ñu bàyyi mbër yi ci écrit yi de mën nañoo entraîner ba jaare fa découragé toog tey nag booy entraîné di am ay combat mbapat combat nommé seen i morom di bëree ñi leen di fay ngay am loo yóbbu seen kër vraiment dina la gën a encouragé pour nga mën a euh, yàgg ci làmb ji bëgg nekk champion. combat yi euh, journée bu njëkk bi ñaata mbër ñooy présenté wu parce que da nga mel da mel ni sa biir wax da nga ne combat yi combat nommé la kon kuy déplacé wu di ñëw di nga xam adversaire bi ngay am. waaw kuy déplacé wu di ñëw di nga xam adversaire bi. ñaata combat la. la. mu nekk 60 lutteurs. ci benn jour bi waaw. léegi trente combats soixante lutteurs ci benn journée dañuy bërendoo géewal kii fii géewal kii fii wala benn mbër bu nekk moom la ñuy géewal ndax buñ ko géwalee mbër bu nekk euh, temps bi est-ce que dinañu ko may. waaw loolu nag dañuy sant waa CNG bu baax vraiment ñu nekk ñi nga xamante ni ñu ngi nekk di doxal làmb nekk di li nga xamante ni dañ leen di sant ñun promoteurs yi parce que tey làmb bu yeggee fii dañ leen sant ñoom CNG surtout président Alioune Sarr dañ ko sant bu baax. ak estafam tey côté boobu noonu ñun mënuñu ci sori parce que ñoom lañ koy bàyyil ñoom ñooy gérer loolu mais xam naa ne daal li ma jàpp mooy comme dañuy gis adresse Senghor da ngay gis plus de cent cinquante lutteurs bëri ci benn jour bi trois combats am fële peut-être ñun dinañ waxtaan ak ñoom ci technique bi nan nañuy def ba par benn combat di jàll combat di teel a commencé quatre heures mu commencé xëy na bu yàlla dogalee balaa ñuy dem dix-neuf heures 30 combats yi dina jeex parce que lutte simple li ñu si jot a jàpp temps bëriwul. kon kooku ni ñu ciy waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo war a bëri tournoi bi. loolu daal lañ ci am mais daal di wax toujours ci en tant que CNG de lutte. vraiment Ouzin Production vraiment man maa ngi leen di encourager. di leen remercier bu baax parce que gis naa li ñuy daj. ni mbir que néew ba ci biir munoo xam li ñuy daj. man gis naa li ñuy daj parce que assisté naa barki dem rek réunion boo xamante ni vraiment di ci remercier waale suñu président Pape Abdou Fall. mu def affaire bu am solo ñu doon waxtaan ci lu bari vraiment mais boo toogee da ngay xam ni daal affaire bi tant que nekkoo ci biir. xamoo mu noo xam li ne ci biir affaire bi kon nag alinsa rek ak Ñambe Thierno Max ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu. mention spéciale sonn nañ ci làmb ji ñi ngi guddi ñi ngi bëccëg ci mbër yi. 60 mbër mu dugg si ku ne xam na ni mbër daa baaxoo tuus. ak yu demee noonu est-ce que mbëri temps dina leen may Ouzin ñu tuus. non temps du leen may ñu tuus parce que dañuy jël journée bu ci nekk dinañ ci jël trois combats yoo xamante ni ñooy ñooy ñooy bëri dernier combat yi parce que day nekk journée boo xamante ni dañ naan diw mooy bëre grand combat. diw mooy bëre spécial bi diw mooy bëre trois combats yi rek nañuy may ñu ñëw tuus ñu ci des ñëpp. nañ tëggee woon 2014 noonu la ñuy bëree xëy na nag dinañ am table majeure boo fa nekk ku nekk mbër day lagg. daan lagg bu ñëwee ba foofu ñu tëggal ko mu xaw a fecc ñu xam ni noonu la mais 60 litres mënuñu tuus ci benn ngoon en tout cas système bi ñu bëgg indi daal dina nekk compétition. waaw te ba pare éliminatoire direct la dinañ la fay di nga bëre bu ñu la daanee pare nga ci tournoi bi waaw loolu daal mooy affaire bi. xam li xam ni dafa laaj ay moyens am nga sponsor. waaw sant bu baax sponsor nag comme ni ko góor a waxee léegi nii mooy ñi ngi demandé ñi ngi demandé ku nekk ku mel ni ni ko góor a waxee léegi nii. suñu grand Modou Ndiaye yor bokk ci ñi nga xamante ni ñoo fi indi góof yo ñu ngi waxtaan ak ñoom beneen bi ci des euh, di di di di sant euh, ku ñuy wax Moustapha Mbeng mm. Moustapha Mbeng mu nekk euh, président union régionale de Dakar de mutuelle de santé mm. parce que feebar faju boobu ñuy dégg ci mbër yi kooku moom moo ñu proposé pour ñu xool nan la ñuy def pour ñu en def benn partenariat pour ñu indi CMU couverture maladie universelle ci biir làmb ji parce que yéen yéen ñi nga xamante ni yéenay reporter làmb ji xam ngeen ni toujours ñi ngi gis mbër feebar ñu koy ketal ñi ngi gis nit ñaa ngi feebar ñi am problème tey ñun ñu ne dañu bëgg indi lu bees loolu ci làmb fexe ba mbër yëpp am couverture maladie universelle ak jaarale ko ci mutuelle de santé yi fexe ba mbër yëpp inscrit ñu jël trois 300 lutteurs yëpp am carte couverture maladie universelle vraiment pour ñooñu noonu nañu àndal ci journée yi ñuy def nii nekkul nag loo xamante ni benn xaalis bu ñuy jox lu bari mais ñun ñoo leen woo ci suñu journée pour ñu ñëw jàpp ci mais ñi ngi xaar yeneen partenaires yeneen sponsor yoo xamante ni bëgg nañ ñu ñëw waaw loolu moom bëgg nañ ko d'ailleurs sax yéen wasaare ci ngeen bokk wasaare làmb yéen yeneen suñu premier partenaire parce que vraiment depuis ñu commencé dox ba léegi yéen a ngi ci biir ñëw ngeen ci point de presse bi ñëw ngeen fu ñu leen woo ngeen ñëw loolu tamit. ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax koo xamante ni xale la bokk na ci làmb dugg na ci làmb képp koo xamante ni mbégte làmb sa mbégte la jàppale ko ngeen ànd ak moom liggéey làmb na dafa baaxoo boo ko tëggee dugal ci say moyen bopp sponsor yi ñëw jàppale la ndax ku ne làmb xam ne sponsor Ouzin Production bu jëlee trois cent litres tëgg leen. loolu laaj na mooy sponsor yi ñu ngi leen di ñaan képp koo xamante ne rek yaa ñuy seetaan à travers wasaare làmb nga ñëw jàpp ci jàppale aussin Production jàppale ensemble làmb boo xamante ni ñëpp dañ ci yëg seen bopp ci bis bi Ouzin ñu lay jaajëfal ndax wolof def ne lu duuf ci nag bi xajandoowul ci cin bi. waaw loolu dëgg la quoi mais ma am ñenn ñu ma xamante ni tuuti rek dam leen ci sant. parce que man dama nekk géejawaay dama nekk Parcelles Assainies même nekk nekk géejawaay bon am ay kilifa yu baax yoo xam dañ nekk ci département de géejawaay bi vraiment ñu ñu bokk si lu bëri ci loo xam dañ koy dañ koy dañ koy yëngandoo ku mel ni suñu président Lat Diop. kooku vraiment mënuñu wax ci télé te duñ ko sant ku mel ni Bakary Traoré ku mel ni ki nga xam te ne suñu papa père Amadou Fall nekk golf yor mouvement boo xam te dafa yor mettre ñooñu mënuñu leen fàtte per top mouvement ànd defar mbong ndong ñi nga xamante ni ñooy suñu ministre muy Néné Fatoumata Tall tey tournoi bi tournoi am la parce que lii tournoi de la jeunesse la premier magistrat de Guédiawaye muy maire Aline Sall lii yëfam la tey lii ñuy def nii ñoom ñoo ñu war a dooleel bu ñu déggee lii rek dañu war a ñëw parce que tey dañu ko def pour liggéey def ko pour mbër yëpp am ci luñ jàpp ku nekk nag laaj ñu la lépp mais ku ci nekk loo ci mën a jàpp pour lii mën a avancé ñu ngi lay tàllal suñu loxo kon vraiment képp koo xamante ni yaa ngi ci géejawaay rek maa ngi lay tàllal loxo di la wax ne la affaire bi sa la loolu laa amoon lu ma doon wax di leen sant leen gërëm Essaf Ouzin production nag su ma limee damay jum père Birame tey mi ngi nekk fële commissariat di lijjanti autorisation bi ñu war a def la 12 moo tax teewu fi Cheikh Thiam heure bii day fekk mu nekk ci liggéeyam xam nga Bouba Moussa ak ki nga xamante ni mooy maa dem ñëpp vraiment loolu moo leen téye mais aw ma seen fay ñëpp. parce que tey 300 litres ku ko xool xam ni benn nit mënu ko def. yaa ngi dégg su su demee ba taxaw fii rek aw ma fay per Modou Bieye. pour wax dëgg aw ma fayam. góor noonu. kon lii sama yëf la mais seen yëf la parce que duñ ma xaar ci dara. gis nga tey jii pour ngeen ñëw fi góor a moo leen jii di ñëwoon nga teew sant yàlla du nuyu sa caméraman bu baax sëñ Basirou di ko sant bu baax naan ko la femme bi mu après def ma koy jox <laughs> di la sant yow jiili aw ma sa fay tamit vraiment di leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf merci. jërëjëf mbokk yi kon noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jàngeen ngeen jëf. jërëjëf